yow Adji Sarr ak yu metti même Sonko da laa ba su meeku bay waaye damaa mujj juga Sonko lii mooy Sénégal Adji yaa bon waaye Adji Sarr xam nga ni Sonko amul problème mu jigéen Adji dañu la yónni yamal waaye Adji toj nga réew mi tax nga européen yi sax kenn tëddatul nelaw Adji Sarr ak say feñu. nekk nga ni soo ko kii yoo la. dañ laa ko kii ay Adji Sarr ku ñuy tëddee da ngay yuuxu.